fii ñu nekk tey Pambal euh, dafa nekk ak càllale ginnaaw bi nga xamee ne euh, jóge nañ Thiès euh, doon def benn visite de travail maanaam benn liggéey bu ñu doon def ak RESOP bi nga xam ne moom moo nekk foofu muy ab organisation d'économie sociale solidaire bu am solo ndax li tax mu am solo mooy moom dafa boole ñaari pàcc yi muy économie sociale et solidaire bi maanaam la production solidaire ak microfinance te ñun orientation boobu bi ñu ñëwee moom lañ jël moo tax ñu am mbégte lool ci visite boobu biñ ci jógee nag ñu ne kon dañuy jàll ba Pambal pour xool nag dëgg-dëgg ñoom li nga xam ne moom lañ jot wax foofu ñu mën koo xaymaal sunu bopp mën koo nattal mën cee teg sunuy loxo euh, pour xool ñun ministère bi ginnaaw bi nga xamee ne dañu am ay intervention yoo xam ne euh, moom la ñuy def léegi ci ni ñuy financé nga xam dañuy wax léegi dootuñu defati distribution mais ciblage la ñuy def donc ñu commencé woon la stratégie de financement ciblé commencé woon ko lancé woon keroog keroog samedi bi passé à Bambey ci cadre boobu nag la ñu ñëw di xool ci organisation yi mel ni yu RESOP bi euh, nan la ñu leen di mën a jàppale ci biir quatre type d' intervention yooyu may wax les boutiques muy boutique source boutique uni production boutique technologique ak boutique témoin ñeenti xeetu boutique yooyu euh, nga xam moom la ñuy appuyer ci microfinance ak ci encadrement hmm, ak ci mettre leen en réseau ak yi ci war yëpp Euh, ci la ñu doon xool fii lan mooy jafe-jafe yi euh, ci loolu nag ñu dajeeg jigéen ñi ñu wax ñu ñoom ne dañoo bëgg financement ma xamal leen ne par étape lañ koy def ndax euh, yàlla rek moo mën a matale te yàlla li muy mën a mën a matale taxul mu di ko muy matale. donc mënoon leen dañuy bàyyi ba beneen étape bi ñu doog a songu Thiès ndax mënuñu defandoo lépp waaye urgence bi tax na ak li nga xam ne moom lañ fi gis mu sedd suñu xol tax ñu ne dañuy anticiper ci ñoom ñu jël ay matuwaay yoo xam ne dinañu xool seen i dossier fexe ñoom defal leen financement en avant que même ñuy commencé état bu Thiès. kon loolu mooy li nga xam ne moom moom moo tëgg tukkee ci euh, visite bi nga xam ne euh, moom laa defoon ma am ci mbégte lool di gërëm d' abord le préfet. ci taxawaay bi nga xam ne def na ko ci préparation mission bi ba ni mu réussir mook la sous préfet de Pambal. di gërëm ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu teeru la muy le maire ak avant loolu le président euh, bu réseau bu cees di gërëm aussi askan wi yëpp ak ñi membre yi nga xam ne ñoom ñooy nekk ci biir coopérative bi. thank you